Euh, euh, di ñaan yoon ñaan yàlla aussi yàlla xare ko aljanna di masawu aussi njabootam mais di ko masawu république bu Sénégal parce que république moo ñàkk doomam euh, mais aussi moo ñàkk kenn ci ñi nga xamante ni compté ci moom mm-hmm. waaye gënon na également di gëna contre compter ci parce que qui euh, ñu né 1900 1921 donc euh, aisément di comprendre c'est plusieurs années avant l'indépendance nous donc mu avant indépendance mu que pendant ni am indépendance mu également durant les premières années de, gouvernance avec saint euh, Senghor mu fekkee également fait un régime fekkee Abdou Diouf régime Wad, fait un régime def fait un régime donc dara xew ci Sénégal ci République Sénégal lu dara fait hmm. parce que fait na ci ans, nous nga xam ñoo euh, Sénégal la donc un régime lu fait ci mi hmm ci lu bi bu ci fonction si mat na ci maanaam ku ko rey génnee déddoo mhm. say waa kër mhm. que jiite na ministère de l'éducation mhm. euh, ci bi ñu assise nationale Macky je pense que opposition en tout cas moom jiite

nga yaatal ko ba mu nekk nga intégré ci les langues nationales pour mu gën a yomb pour chaque uh-huh. euh, pays donc kooku moo ñu moo ñu donc mu mu nekk une grosse une grosse perte pour le Sénégal mais aussi pour adduna bi di ko jaalewaat sénégalais yëpp di ñaan yàlla yàlla xare ko aljanna mm-hmm. yàlla également ñi nga xam ñoom ñooy ay njabootam mm-hmm. yàlla euh, may leen xolu muñ

donne laaj pour le Sénégal euh, nekk dem na fi fi finalement amul. bon il est évident d'abord que c'est une perte qui est universelle c'est-à-dire c'est une perte boo xam ne àdduna ñëpp a perte. Mm-hmm. toute l'Afrique aussi ñàkk nañu d'une manière générale ku am xam-xam borom xam-xam déjà mag rek. comme li nga wanee ginnaaw àdduna rek daa mel ni bibliothèque mon garçon mon mon moo mon lac laq c'était ton monsieur euh, qui avait vraiment mm-hmm. le niveau wax intellectuel au vrai sens du terme mu mm-hmm. nekkoon kilifa bi fi -hmm. et je trouve que c'est une perte pour euh, l'humanité c'est une perte pour le Sénégal d'une mm-hmm. manière particulière parce que ñëpp xam nañ taxawaay bu mu amoon Sénégal ñëpp xam nañ apport yu mu am ci lu ñuy doxalee suñu réew yi. Mhm. te yàgg bu mu fi yàgg ak euh, jëf yu mu fi jëf yëpp am ginnaaw bu sedd. dañ koy ñaanal fu mu jógee fi mu nekk. Mhm. effectivement lu mu fi jotoon teg comme ay proposition comme ay réformes ñu gën a xool luñ koy mën joyantee. Mhm.

xam naa ay ressources humaines nan mën a présenter sur l'international, international am position boo xam ne si ne moo directeur général UNESCO ne serait-ce que loolu rek day jox Sénégal benn gëdd mhm. kon kooku mel noonu bu ko ñàkkee d' diplomatie Sénégal moo am lu ñàkk mhm. beneen poñ ci wàllu culture parce que nit ñi dañoo yaakaar culture fecc la ay taaxuraan ak yu ma culture beneen affaire et culture tu culture sax la ciy dugg mhm. moom je me rappelle bi nekkee quatrième amoon na texte bu ñu doon def ci texte argumentatif boo xam ne mu Amadou Mahtar Mbow ñu war doon texte bi ci wàllu culture. Hmm. ci suuf UNESCO nañ ci bind directeur général Amadou hmm. Mahtar Mbow nga xam ne dañ daa étudier le texte argumentatif pour mu compte. kon moom ñun képp koo xam ne def nga quatrième da dégg turam dégg lu bari ci moom. Hmm. kon toll foo xam ne day soxla ay mag hmm. mag ñoo xam ne mag ñu jàng la comme ne ko waaje waxoon mag mën naa ba ci réew parce que mag du yàlla waaye mën naa ba ci réew kon Amadou Mokhtar Mbow magam gi mu nekkee woon njariñ la ci Sénégal parce que ak accompagne na fi état du Sénégal bi nga xam ne si réew mi soox na ci kii li mu wax sànq c'est un vrai intellectuel parce que intellectuel mais ki nga xam ne réew bu demee ba nit ñi dañuy jaaxle amuñu fu jëm nit ñi xamuñu lu ñu proposé

mu gënal ko fi mu nekkoon. accord alors si actualité yi nga xam ne tam def ñuy dab des fois ci jour yi alors da ciy bokk itam euh, benn